tey ñu ñëw ci aéroport AIBD pour am fi waxtaan bu am solo ma ànd ak samay service yëpp ñu xamante ne ñoom mën nañu wax ne ñoo yoru xeex bi ci terrain docteur Abdoulaye Bousso jiite leen ma ànd ak directeur de laboratoire parce que wàllu test dafa nekk bu baax ci li ñuy waxtaane mais aussi di féliciter docteur bi xamante ne moom moo yor contrôle sanitaire aux frontières mu fekk ndaje bi waxtaan bi nag liko ko sabab mooy que Sénégal dafa xeex xeex bu mucc ayib le 2 mars ba fi ñu toll bi commencé le 2 mars bu ngeen fàttalikoo li fi indi woon jàngoro bi kaala bu jóge woon bitim réew ñëw si réew mi ñu koy wax cas importé foofu la mbir mi jóge di law ba ñu yegg fi mais ba ñu demee kanam vers le mois d'avril mais Sénégal a na taxawaay ci xeex bi ba cas importé sénégalais déggatuñ ko woon ci typologie ou cas yi ñu am fi ñu Sénégal yépp Afrique yépp Aduna, bi yépp nañ Sénégal ci xex bi mu xex b wax dëgg yàlla ñi ngi sant suñu borom mu xeeb doli gis nañ ne mbir yi mi ngi wàññi bu baax a baax a baax mais mbir yi mi ngi wàññi mais ñu seetlu benn phénomène bu bees boo xamante ne nag il faut que ñu teg si loxo mooy li ñuy wax kaa importé dafa mel dafa dellu si waat loolu nag mën nañ ko expliquer parce que Sénégal mi ngi xeex di si def ay résultats yu baax mais seetlu nañ tam si àdduna bi feneen mbir mi mu ngi fay jogaat. te Sénégal nag du benn île boo xamante ne dafa déconnecté wu si àdduna bi bon nag day demalante ak di ñëwalante ak dëkk yi bon nag suñu taxawaay mooy rek fii di aéroport ak lépp luy frontière ñu am fa taxawaay bu wér boo xamante ne danañu permettre cas importé bañ a bëri si bëri ñu taxaw si nag ak ministère bi xamante ne moom moo yore donc lépp luy euh, aéroport pour que ñu mën a def ay dogal dogal bi njëkk nag te bi am solo boo xamante ne waruñu koo caaxaane te waruñu ci masla mooy dañ ci war a def tolérance zéro mooy képp kuy dugg Sénégal rek nga yor benn kayit buy wane ne test nañ la te amuloo jàngoro bi loolu moom li ñuy demandé mooy ñu bañ ci am benn masla mais ñàkk maslaa bi day fekk nag ñu waxtaanee ko ak ñi ñu ko séqal te waxtaan boobu yaakaar naa am na ba ñu jàpp ne fii ak le premier novembre loolu nañ ko appliqué. loolu nag buñ ko defee am na ñu mën a wax ne waa mais lu tax waxuñ ne tey tey tey tey organisation aéroport moo demee noonu parce que am na loo xamante ne boo koy dugal ci changement ci compagnie aérienne yi xamante ne ñoom dañuy planifier ni seeni mbir ci ay weer il faut nga may leen délai bu ñuy adapté wu moo tax ñu may leen fukki fan ak juróom yooyu pour que ñu adapté wu ba à partir du 1er novembre benn benn benn voyageur du mën a dugg Sénégal te wane woone amuloo cas boo xamante ne amuloo jàngoro bi wane attestation bi mais si biir fukki fan ak juróom yooyu il faut que ñun ñu organiser wu noo xamante ne contrôle bi nday taxaw ba presque risque bi ñu faire tendre ko vers loolu tam joxe nañ effectivement instruction yépp pour que fii ak mise en œuvre bi ñu taxaw taxawaay bu mat sëkk au niveau contrôle sanitaire aux frontières au niveau ministère de l'intérieur au niveau transport aérien ba jàngoro bi duñu mën a jaar fenn loolu tam waxtaane nañ ko beneen euh, élément bi itam mooy que ne test bi dañ ne lépp lu ñu def ci wàllu xeex mbas mi ba ñu commencé ba léegi dafa wéeru ci stratégie boo xamante ne Sénégal da koy teg du ñu jóg rek gént benn affaire ñëw def ko mais dafa am ay experts yoo xamante ne seen xalaat dafa màcc ci mbiru xeex mbas ñoo xamante ne ñi ay docteur lañ ñi ay professeur lañ ñi ay experts yeneen domaine lañ parce que comité multisectoriel la ñooñu la ñuy wax comité national de gestion des épidémies fu mbir mi tollu rek ñoom lañ koy jox ñu lëlu nañu lii kat lii moo si sabab bi lii moo si saafara bi ñooñu nag ñoo nañu test bi nañ leen demande effectivement test boo xamante ne boo ko defee ak boo laa yegg si délai bi 7 jours la bon nag ñi ngi remercier CNG boobu parce que ba ñu commencé ba léegi dañ leen wóolu te yoon bu ñu teg rek gis nañ si njëriñ ñu ngi leen di remercier bu baax di wax tam ne euh, message bi ñuy lancé muy message bu mujj bi avant may dellu doole delloo micro bi ministre bi euh, yore transport aérien mu tëj waxtaan bi message bu mujj bi may joxe que ne maa ngi féliciter acteurs yépp maa ngi féliciter communauté bi yépp maa ngi leen di féliciter bu baax parce que nag bu ñu mënee yegg fii le président de la république texte stratégie bo xamantene maintenant une stratégie gagnante la ba aduna yeb diko ko c'est parce que am adhésion communauté bi yeb adhésion population yi adhésion acteurs yi surtout adhésion ñetti qui euh, courel yi ñom ne euh euh yoré mbir mi nek fi ci bir table bi ci ci si table moy ministère de l'intérieur ministère de la santé ministère du tourisme et du transport aérien parce que waxtaan tey bi ñoom ñoo ko seex maa ngi di remercier bu baax te yaakaar naa ne li ñu fi tënk nous bu ko appliqué cas importé dañu fi joggé té bu fi cas importé joggé cas contact mo fi des ñu xam nañu koy ñu koy def cas communautaire aussi ñu koy gérer mais cas importé dal. buñ ci taxawé bu baax dootuñu ko dégg ci réew bi té bu boba dañu mëna donc négocier atterrissage bi bu génn ci mbass bi